Wow, waaw waxtaan daal ba déggoo ba ne protocole di allah ñu jublu. li des nag mooy gars yi dem CNG suñ demee rek incha allah gars yi fësale date bi waaw. nga ni doo ñu ni dañu doo bëri ak Balla Gaye Sénégal yëpp ñu ne Balla Gaye Eumeu Sène moo ñor moom lañ soxla. waaw loolu question da may laaj beneen question. lañ ko lan li nga ma laaj sànq dañuy weesu ma su ma digganteeg bu léegi fan ngeen ci toll. waaw mooy lu ma laaj rek li ma ci fi ñu ci toll wax naa la ko def nañ protocole d'accord ñu xaaral gars yi dem CNG incha wa ñom dañu yag daas fanana sax Pikine mom ku ne xam nañ ni ay jambar fa ne waaw di nuyu nak ñepp and ak sa rak sa xarit Boy Niang ngeen di wote 100% waye yam ko ci da tey Boy Niang wara a ak euh, la de guerre yeen conseil nga koy jox en tant que ku la jël si nekk bu mu lëndam wara wax koy jox wa suma combat la suma combat la su ko waxe moy ça veut dire combat bi suma combat la combat bu ñor la ñu koy waajal yalla baax Euh, euh, waa ñuy waaj ñuy waaj ak suñu ay mbokk xam nga ak suñu ay am di jàmm ak waa Pikine bi yëpp am nañ baa ba am solo ñu ngi koy waaj ñu ngi suñu bopp defal ñu ndam tey dañu ànd ak suñu grand ñu yëw gunge suñu grand Matar Ba et puis ñu sant ñëpp. gis geste bi nga def dafa rafet lan mooy sa laa ak amateur yi boo bu ñëwee amateur yi jug ñëpp di ko tàcc lan la yaru la wala teera wala lan nga wan amateur yi bëggoon nañ nga wax ñu sa diggante ak amateur xam nga lu mu am rek lañ koy jox quoi ñun ay mbër lañ ay mbër yu ndaw lañ sax dañoo ci làmb xam nga bokku ndey bokku baay teg ko ci yoon ba pare xam nga bu ñu amee combat def ci fula ak jom te amateur loolu la soxla quoi. ñu ngi bëggee ñëpp nag waaw lan ngay wax sa supporter yi nga xam ne ñu ngi waaj sa diggante ak Ama Baldé ak lan ngay wax sa fans yi lan ngay wax waa làmb waaw di leen waaj sama diggante daal la dëgg ñu ngi koy waaj ñu ngi ñaan suñu moom defal ñu lam ci bàq Cheikh bi ñu ngi waaj ak waa Pikine ak si dañ ko teg ci yoon bu baax incha allah. dal jàmm fan si ñu ni combat bi Boy Niang dafa war a dal tey ndax borom xam-xam comme moom lay bëri. waaw noonu la combat yëpp da nga war a dal tey teg ko ci yoon quoi lool xam nañ ko bu baax incha ñu ngi ci tegu daal bu neexee yàlla. jërëjëf Boy Niang kontaan naa trop yàlla nga am jàmm